boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyi ko. salaamaaleykum. mbokk yi mbokk yi ñoo ngi jël kaddu ci turu Serigne Mor Xabaan mu Cheikh Fadil mi jiite mi sëñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu njàng alxuraan kàddu yi du gudd yu gàtt la doon incha allah ndax donte xam nañ ne buñ fi nekkoon ba suba kenn du doyal xam nañ ko waaye nag sëñ bi dafa sàkkoon it lu jiitu suñu kàddu bi jëpp ñu jox suñu daam jaane ci xasida gu mbàkk soxna Ndata Siise mu jàllale ko ñu doog ko indi kàddu bi incha allah. ndax lépp loolu ñu amee ni loolu moo di indi ànd yaa indi naa ko tajwid bu set baat bu neex tey dëkkatul te ne weex la joojo doon doon daal daana dee di ma laal jaaraama yow da ne siis daggoo fi neuf ak i siis PV ñu doon napp moom la yàlla yàq ci sa gaar ndokkel nga day farata sargal la war ci ku ne jaaraama waaw kumba doom sikkil nga waa Sénégal yàqu gago rungewoo doom nakk nakkaliwoo juróomi laaj la ni dëf jox leen ko bant mu laal laf cat ma jënd la neex gaatu wër ga yaa ak dal nga tuuti mu yeewu warsoo ci ibnu jalaa tey weer doom lu sa kaw makke ngi lay soo ko ne siiw gis ñemewu ci sa daal tey gerte doon wut ca kaw makkee bi day tiwite soo ko na siiw ci sa seen daara ñemewu ci sa gaal yokkaat nga gàmmu bu bës yokkaat nga gàmmu bu bës suñu tànte ne dafa xuus bégloo nga naw addina yëngal nga tey Sénégal yaa jël di teeru ni buur yaa jël takkal li bi dox yaa jël jël ay rapport pour nga cat du la laal talaata ba nga bàyyi ko Dubaay ba ñëw da nga gis ñee def la kenn kaaba ñee te tuwa xajal ma wala Touba ni moom ndam li moom doon la la ñeentu xamis jaaroo ci kaw APEAS dekkal la route nationale mbokk ak ren di la gis ñee may la mboola bu sëb kon yëpp a sedd ci yow ndax ndam la ndam national jaajëf suñuy seexu na liggéey bi yëpp yow rongoñ yi daaw jóge moom lañu compte ndam lu xalaat jaajëf suñuy seexu na liggéey bi yëpp yow

sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Abdou Cheikh Abdou Bachir mi nga xam ne moo jëw nañu tooru Cheikh Khadim bi radiyallahu anhu di ko teg ci loxol jëwriñam ji di sëriñ Mourou Xabaan mi nga xam ne moo sàkku suñu jël kàddu ci turam dana àggale nag sëriñ bi nee na day mi ngi sant mbooloo mépp ci turu sëriñ Mountakha ndax la ko dale ci talaata bañ koy teeru ci aéroport sëñ Mountakha ci boppam bu manoon moo ñëw boppam ndax teeruwul gan bu mu gën a fonk ci gan bu ko indil ndax alxuraan gan bu indil alxuraan bu sañoon ba ngeen ko teeroo ci aéroport ànd ak moom Dakar ca lay nekk moom sëñ xaban nii nekkal fa sëriñ Mountakha ndax loolu la jéene sëñ Mountakha bu soñoon dafay ànd ak yéen cortège bi ba ni ngeen accès fii loolu moo war a ba maanaam fi nii moom takkusaan lañ ko waxoon mu toog ginnaaw timis kilifaam doon na ko yebal ci maye sëñ waaye bi mu xasee xam li nekk rek da ko daal di yoromal waaye moom it nee na tax yëgul coono bi yëgul tàngoor bi yëgul métti bi mooy jàpp ne ne lu ci nit doon def moom nga koy defal ndax dañ koo sas xam na sas mu ko sas dañ koo tànn na nit ay àndandoo yi gën ci àndandoo yi mooy ñi nga xam ne ñoo wut yonante bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne li sëriñ Tuubaa wax ustaan yi kitaabullahi ca la ñuy xëy ñoom suba ak ngoon sëriñ bi nee na kon loolu ko sëriñ Muntaxa tànnal ci moom nee na am na yaakaar ci yéen am na yaakaar ci seenu ñaan ngeen ñaanal ndax am na yéene lool ci am ndam liggéey bi nga am na ko lool yitteel na ko lool bu sañoon fu daara nekk tànkam teew fa bu sañoon fu am suñ daara nekk mu teew sa wet bu sañoon suñ daara bu am yitte mu dal koy faj na ngeen xam ne loolu moo nekk yéeneen moo nekk bëgg-bëggam moo nekk xolam nee na mi ngi sàkk yéen ñuy xëy ci téere bi di gortu ci mi ngeen di ndokkeel yéen sëriñ daara yi yéen ñi nga xam ne yéene yor coono bi yéene yor métti yor tàngoor bi muñ lépp lii feeñ ndokkeelu suñ daara yooyu nag ak sargal suñ daara yooyu mi ngi koy teg ci tey ci loxol Serigne Cheikh Naa Cissé mi nga xam ne moom la yàlla jaaral ndam si moom te ñun ñëpp ñu am ci benn yëg-yëg si daara yi bari nañ fi lool kenn noppaluwul suba ak ngoon jàpp ne ndam li sa namul bopp loolu li muy tekk la mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne benn yaram lañu ay cër rek a fi nekk lu dal cër cër yi jëles yëg ko kon alhamdulilahi rabbil alamin nee na bu bu doonoon tey nit ñi teeru nañ ko mbooloo mi teeru ko fu ne ko ci daara yi téewuñ xolam bu set waaye nee na yéen a coono bépp yéen a ko yéen a ko ràngoo ku ñëw danañ kaa fekk ku demee danañ ci bàyyi nee na ko seeral bu a baax a baax nee na ndokkeel soxna Mbacke Cissé di nuyu waajuram bu bi nga xam ne moo toog di ñaanal waajuram bu góor ba nga xam moo jiitu sëñ jiiri jun ne ko sànq ci ab cër la ab soññee la sépp soxna soo xam ne yaa ngi liggéey nga góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te ka nga nekkal kon na ñu sargal soxna soosu di sargal soxna Mbacke bu baax di ko ñaanal yàlla aar ko sàmm ko fanam lool wéral aw yaram mott li li nga xam ne moom mooy ay yéeneem li nga xam ne nag moom def Serigne Touba radiyallahu anhu ku ñu wax Serigne Moussa Alima Gueye bi ko bi mu ànd ak waajuram ñëw Serigne Touba radiyallahu anhu ku baax ki ne ko lu mu def noonu lu mu defa téere bi sëriñ bi bépp téere bu mu doon bu dee naxwu bu dee mantiq bu dee usul bu dee bayaan bu dee mustalax fiq xadis lu mu doon danaan la téere sàngam tudd téere ba waaye bu dee téere bi alxuraan lay wax bu ko maarifaat rek alxuraan lay wax mu ne ko nu mu defee téere bi ca nekk tout tànk ñu ne ko ah moom day wattu na sëriñ bi ne ko bismillah mu tàmbali alif lam mim daal di tab ba ci al muflixoon bi sëriñ bi ne ko wax nga dëgg de li nga jàng seede na ne mokkal nga li des dal di koy jël teg ko ci kawam moom sëriñ Tuubaa ku agsi moo ne tey damaa am gan bu tedd bëgg ma ko teral la nee na kon lii mu def loolu lay jéem a roy loolu lay jéem a firndeel waaw loolu lay jéem a roy loolu lay jéem a firndeel ne sëriñ bi fonk woon alxuraan na mu tege woon alxuraan ca kaw ne woon alxuraan amul léppam léppam kitaabuhu saanani an kulli mafsadatin wa kaffa anni l ada kama mahadarani ayni wa diini wa aadaati bihi saroxat bihi unabbihu ahlal asri wasali kon foofu la Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nee lu ma am alxuraan la sama li jag lépp alxuraan la sama lépp rafet na ci alxuraan nee na kon képp ku bokk ci moom am nga ci aw sas rawatina nag moom mi ngi ko dénk daara nee na waaye ñu sàkk ngeen ñaan baax a baax a baax nee na mi sant monsieur le bu baax bi muy wax xaal la doon mu waxe wut monsieur bu mairie xaal ab murit buy wax ak jullit buy wax bu yëg ak dëgg-dëgg mbégteem ci alxuraan ku xam ne it xam xam xam ne waxuñu lu waxee nii de waaye raar na lu ñu yi bu dee bu dee am na it loolu am na te dégg ngeen engagement yi ñu fi jël ci turu maire 3 millions engagement boobu 1 million loolu day mandargaal ndax lu mu waxoon waxoon lu wax wax ñu saf saf yi dañ ne waan lu mel participé loolu li mu doon wax firndeel na ko it ci ay jëf sëñ bi nee na ngi ne sant bu baax sëñ bi nee na ngeen gën a dénk daara yi ngeen gën a jàppale daara yi ndax ndam lu rëy nii lu ko indil nee na ko jàppale boo xam ne amul woon ay moyen ci moyen yi boppam dara demee yu néew doole yu ñàkk solo di ci góorgóorlu ba sagale sagale nii réew mi nee na yow mi fi teewal état mi ngi ko teg sa loxo waaye ca ku ku màkk la jëm muy président de la république moom mi nga xam ne sëñ sëñ daan jaane wax na ko léegi maanaam ginnaaw mi ngi ko bind ci tooteem di ko félicité mi ngi mandargaal ne kon am na mbégte bu baax a baax baax mbégte moom nga moom la ko doom ji indil nag na bàyyi xel loolu civil ñëpp naan Sénégal Sénégal Sénégal ngir jëmmam ji mu champion du monde nee la togg loola muy waa daal nee na sëñ bi mi ko dénkaan bu baax a baax luñ ci góorgóorlu doy ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a ci li ñu tegee sëriñ bi nee na mi ngi sant presse yi ndax presse bi wax dëgg yàlla ah, ah, ah, yu bare yu baree baree bari ci ay événement ñaare bu désordonné comme nii ñu bari dañu rocc seen i kii dem loolu xam nañ léegi bu mel nee nenn rek ñu bari dañu rocc seen i caméra daal daal di dem waaye yëg gi ngeen yëg ni lii ak jaamu yàlla la tasaare gi ko tasaare bi ngeen ci am ab yool insha allahu taala kon mu taxal mu jaral leen lépp boobu ba léegi lépp lu leen ba ngeen ñëw fee yéen seet seen ñëwal seen bopp bañ fa jógee ñun ñëpp dugg ci oto yi ngeen lijjanti lu ngeen ñëw jiitu suñu waat ñu fii loolu kon positif la ak pas-pas suñu ne li ngeen ci séenu yàlla ngeen ci am lu ko lu ko raw ku mu doon ci yéen na dem ba am télé boppam ak lépp jumtukaay yoo xam ne lu naa ne ni ma waxoon ci ak cant nee na dana jafe loolu mat waaye maa ngi ko daaneel soxna muslim soxna muslim sëñ Modou Dieng mi nga xam ne borom daara la nekk seen wet ca ngoon ba léegi ma nga fële ca barab ko taxaw boobu ba léegi ni ko ànd ak ñun boobu ba léegi fu mu toll mi ngi may woo kañ la ñuy def nangam nan la ñuy def lan moo ci nga xam ne dafa àggoon ci ñoo ko ne ko nit situation bi demee te xamoon nañ lii waaye dana doon day yokk daara ñëpp indi leen ci teeru bi utal leen ay kaar ma ne ko nag bu mbooloo mi tasaaroo dana jafe ku yor ay cuut ci ay cuut maanaam dana jafe nga napp leen dugal leen ci tax maanaam loolu day jafe booy boo rek nga nga te teewaale ma ànd ak sama neuf sept kilo mi ànd ak ñu teewal waa daara yëpp waaye nag ci loolu sëñ bi nee na da koy tekki loxoom mu jàll ko ci mboolem jigéen ñi ñëpp jigéen ñi yëngu ci alquran ñuy jàngale alquran way juróom soxna maam Mariam suñ suñ suñ sëriñ bi soxna May Laat soxna maam Awa Mbakke sëriñ Bachirou ak ñi ci yëngu yëpp ak mboolem jigéen ñi yor daara nee na daal seenum nuyoo soxna mos nañu ko teg sa loxo nga di ko jàllale sëriñ Fadi sëñ bi neen sant na bu baax a baax taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla mooy yow mi nga xam yaa jiite rabitatu madaarisi quraani ci Sénégal rabitatu di kuréel goo goo xam ne 2000 la sosu woon liggéey ci ci terrain bi lu baree baree bare fàcc terrain bi ci bi mettee jànkonteeg ay jafe-jafe yu baree baree baree bare weexal ay bët yu xonk yu baree baree baree bare yàlla dogal nag sëriñ Xaadim day nekk au niveau national ci al aminul am ñu ñuy yor seen man mii ma yor kàddu rabita bi waaye sëriñ Xaadim nekkal ñu fii ci Touba suñu kilifa ñun ñëpp waaye ab taxawaayam rafet na taxawaayam mboolem ñu ànd moom sëriñ xam ne Moustapha Diop mi ngi nii sëriñ Xaadim euh, Touré mi ngi ak mboolem ñi nga xam ne sëriñ xoolal sëriñ Abdou Samad Sylla la ci ci at yi mu toll tiiwut na damaa gees bi sama sama sama deux pratique waaw bu ko neexoon mën na faa bañ a jaar wax dëgg yàlla ñun ñëpp mën nañu ko faa teewal ñu leen sant baax sëñ bi sëñ sëñ Talla nee na sëñ Talla sëñ sëriñ bi nee na mi ngi lay sant di yóbbante ak cant yaa ngi ñi àndal ci sëriñ Abdoulaye Dia moom day gis nañ ak bëggam alxuraan firndeel na ko ndax alal du caaxaan alal du caaxaan boo koy wut di ko dagale fa nga koy def ñor na la yitteel na la man damay faral di nettali moom moom Abdoulaye Dia lu ma nettali woon man lu ma waxoon loo xam ne daw sama yaram la dana man seen rajo bi man damaa dem kokki bis dem ci dem ci benn xalqa fekk fa soxna suy jàngale alxuraan boot doom nee na naa moom mi jàngale ak dongo yi mi jàngale waaye nee lii xale bi mu boot rek dama koo ñee ñee ñee ndax jawi alxuraan yi bi wax loolu ronko ñaan ko kon kooku ku bëgg alxuraan la yàlla na ko alxuraan fay yàlla na ko alxuraan teral waxtu nekk sëñ bi nee na ci ñi muy jeexale mooy ministre de l'éducation mi nga xam ne soxna Awa Diop mi nga xam ne moom ministre bi ñu chargé lépp lu jëm ci wàllu daara di soxna sëñ xaban nii waaye teewe woon fa ndom ba tànk googa teewe woon fa doon doomi daara waaye teewe woon fa jëm sëñ xaban yi ñëw ànd ak soxna Ndate ànd ak mbooloo mi teeru ko ba li tey war lépp mu def ko sëriñ Taala jokkoo ñu doon jokkoo yëpp gis nga ko ni ko yittee la woon ak ni mu ko ñore wax bi nee na ko en tant que waaye moom ginnaaw moo jiitee daara yi lu waay defal daara moo ko defal loolu si cadre boobu la ko sant bu ko keneen si defoon it mu sant ko kon loolu nañ ko bàyyi xel baax a baax ministre de l'éducation nationale ci teeru bi mu teeroo xale bi ko dalal jël teraanga ji mu jël ter ko teg ko ci loxoom jël teraanga teg ko sëriñ ñëpp la ko defal sëñ bi nee nañ ko ci sant ndax lu waay def ci loolu moom ko defal waaw cant gi nag ñoom ñaar yooyu lu ñu ci def nee mi ngi jàll ci président Macky Sall mi nga xam ne mooy seen jëwriñ bu leen waxoon duñ ñëw duñ ñëw bu waxoon kenn dafa dem kenn dem ba ma ci njëkkee jokkoo ak jenn kilifa waxal moom mu jokkoo ci ak moom dana président nee na de incha allahu dana yabal ndaw ay ministre yu teew looloo ko dana yabal ministre teew loolu nag defe naa ñu ngi sant baax xam naa ne sama turu bopp ñun suñ daara yi ndam lu rëy lii ñu indil ko réew mi sant ministre éducation nationale bu baax moom mu ngi mooy suñu bunt mooy suñu féete ndax foofu lañ foofu lañu féete ci wet googu waaye daal ndam li ndamul Sénégal yépp la buñ sañoon teg ko ci loxol na koo xam ne nag bu ñu ko tegee ci loxoom ci wàllu république ci wàllu réew mi ci wàllu réew ndax bu ñu tegee bu ñu teg loxo dëgg rek loxo sëñ Tuubaa lañ koy teg mu sëñ Mountakha Bal mu wala mu sëñ Mountakha hafizahullah wa waaye wàllu république bi rek na koo xam ne boo teg ci loxoom mel ne teg nga ko ci doomi réew mépp muy président de la république am nañ yéene nag bëgg nag mu dalal soxna Ndata Cissé teeru ko teral ko ndax boo dem kuy mas a teral teraanga ji indil réew mi yëmut ak teraanga ji indil réew mi loolu maa ngi koy bàyyi loo xel bu baax a baax di ko ñaan sañ nañ koo ñaan di ko yalwaan ndax ay donga daan lañ sañ nañ ko yalwaan donte lu yàlla la lu jaadu la lu war la waaye nag loolu nag maa ko wax kenn waxuloo ma ko suñu xabaar doomu ko jëlaat wax. léegi mu sant yàlla bu baax baax. di nuyu mbooloo mi. ci ndigalal Cheikh Mamadou Moustapha. yàlla na ko yàlla yàggal lool te wéral. sëriñ bi wax ne. sëriñ bi wax ne. am na cant lool. am na cant lool. am na mbégte. am na mbégte. te mbégte mi ak cant gi. te mbégte mi ak cant gi. da koo ànd ak Sénégal l'islam gi waa l'islam bépp. da koo ànd ak waa l'islam bépp. ndax ndam lu ndam lu Cheikhul Khadim am. ndax ndam lu Cheikhul Khadim am. ci alxuraan. ci alxuraan. moom ñëpp ko séddoo. moom ñëpp ko séddoo. ndax moom si maamul wala asri la wax. ndax moom imaamul wala asri la wax. si maamul wala asri. kon kooku. ku yëngu ci lu baax rek. nee na kon kooku ku yëngu ci lu baax rek. yaa ngi ci biiram. yaa ngi ci biiram. kon nag mbégte mi am mi ngi mi ngi jot jot li cant ci yéen. mi ngi jot li cant ci yéen. ndax bu mbégte mi amee. ndax bu mbégte mi amee. seen taxawaay la. seen taxawaay la. ni nga ko waxee woon léegi. ni nga ko waxee woon léegi. su ma tuddee seen daara yi. su ñu tuddee seen daara yi. tudd sëriñ Cheikhouna Cissé. tudd sëriñ Cheikhouna Cissé. ndax ni ngeen ko gungee. ak ni ñu ko gungee. te sëriñ bi wax ne. te sëriñ bi wax ne. li ko li ko gën a am li ko gën a amal ak cant ci kër dëkk bi. li ko gën a amal ak cant ci dëkk bi. ay daara ay junni daara fi nekk. mooy ay junni daara ñoo fi nekk. waaye benn daara bu ci bu ci am soxla. waaye benn daara bu ci am soxla. daara yëpp dañuy jóg. daara yëpp dañuy jóg. te loolu nag mi ngi rogaat jëm ci jëm ci Sénégal gépp jëm ci àdduna bi. loolu nag mi ngi rogaat ñëpp di leen ci roy mu jëm Sénégal gépp jëm ci àdduna bépp. kon mi ngi ñaan yàlla. kon xale su ndoom si nga xam ne day doog a tàmbali su ndoom si nga xam ne mi ngi doog a tàmbali di tàmbali dugg àdduna di doog a tàmbali dugg àdduna tàmbalee bëgg a xam boromam tàmbalee bëgg a xam boromam eh, suñu borom yaatalal ko ak musalam te musal ay waajuram ba ñu fekkee njariñam te musal ay waajuram ba ñu fekkee njariñam mi ngi sant ñëpp nee na mi ngi sant ñëpp wax dafa mënut a ñàkk rek wax dafa mënut a ñàkk rek waaye fii moom waaye fii moom ku fi ñëw sa xol sedd ku fi ñëw sa xol sedd turux yëpp a a ngi fi xaadir xaadir tiijaan tiijaan murit murit laayeen laayeen ñëpp a gunge si xale bi ñëpp a gunge xale bi loolu sëñ bi nee na lépp yëg na ko loolu sëñ bi nee lépp yëg na ko la tàmbalee ca Dubaay la ko tàmbalee ca Dubaay ca ngan ya fa amoon ca ndam ya fa amoon ngan ya ngan ya fa amoon Sénégal ak Sénégal muy Ndakaaru Ndakaaru dëkk bu romb dëkk bu ñu romb ku ne bëgg koo ganale ku ne bëgg koo ganale loolu ki tax ñu xam ko nee na ki tax ñu xam ko mooy Cheikhul Khadim mooy Cheikhul Khadim moo moo waloori li ñu naan moo valorisé alxuraan moo ñu valorisé alxuraan sonn ci alxuraan sonn ci alxuraan tàggat ci ay ñooñam tàggat ci ay ñooñam tàggatu saahir nag tàggatu saahir nag baatin bi soog a ñëw baatin bi doog a ñëw xaw leen a alak ci ñu xam ni ñu ko war a xamee xaw leen a alak ci ñu xam ni ñu ko war a xamee ci alagu leen ciy dóor ci alagu leen ci ay dóor waaye ci yar ak teggin waaye ci yar ak teggin ak ci wéetaay ak ci wéetaay ndax yar bi gën a gaaw ci nit ndax yar bi gën a gaaw ci nit mooy wéetaay mooy ak wéetaay booy booy jaamu yàlla sax booy jaamu yàlla sax xalwa bi xalwa bi mooy yàlla na suñu borom fayal Seexul Xadim yàlla na suñu borom fayal Seexul Xadim daal nee na sant ñëpp sëñ bi nee sant na ñëpp bu dee ci wàllu soxna yi bu dee ci wàllu soxna yi suñu tuddee soxna ndate ak way juróom buñu tuddee soxna ndate ak way jox cant gi soxna muslim jox cant gi soxna muslim gis naa sama xol daal daa fees waaye nee na xolam daal daa fees ba mu wax ni mu bëgg a waxee ku fi teew daal ku fi teew daal yàlla suñu borom faj sa aajo yàlla suñu borom faj sa aajo ko teewee déwén yu bëri te ñu teewee ko déwén yu bëree bëri téeméer at yu tegal yu ma téeméer at yu tegal yu ànd ak mucc ak wér yu ànd ak mucc ak wér te lépp sëriñ bi uh, attan na ko ci ci ñaanam gi mu ñaan borom te lépp sëriñ bi attan na ko ci ñaan gi mu ñaan borom mi may ñaan gépp nangu te ñaanam gépp suñu borom nangu irham jami al wara irham jami al wara ba mu ko waxee rek ba mu ko waxee dañun ñëpp dugg ci biir dañun ñëpp dugg ci biir ñuy nuyu monsieur le maire. ñu ko nuyoo. bu ñu ko nuyoo. ñu ngi suñu sang baax ba. ñu ngi nuyu suñu sang bu baax ba. Euh, di di jëwriñu sëriñ bi. di jëwriñu sëriñ bi. di Cheikh Sidi. sëriñ Sidi Mbacke. di nit ku incha allah di ab royukaay. di ab royukaay. Eh, yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal fi kilifaam yàggal fi kilifaam ak rakam ak rakam ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi sant bu baax a baax di sant ñëpp rek di sant ñëpp di sant suñu xarit yi sëñ Sall ak di sant sëñ Sall sëñ Tall ak sëñ Tall ak mboolem ñi ëmb xale bi ñëw ma ak mboolem ñi ëmb xale yi xale ba muy ñëw li alxuraan dong man li alxuraan dong man kon nit ku am juróom benn fukki at nit ko am juróom-benn fukki at wala lu ko jege wala lu ko jege ànd ak topp topp ko am fukki at topp ko am fukki at loolu yàlla ko alfaat rek ko man leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fi ñu bind abonné bu leen fàttee bés fi ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyi